bari na am tiitam itam jéggi na dayo kon loolu la ñuy jéem a tënk tey waxtaan ci ak yéen xam naa dañu mën a tënk sax masaahid yépp waaye danañ ci jéem a jël benn xaaj incha allah aman na sax ñu tënkal leen ci lu mat juróom-ñett yow ma bu jëkk bi ñoo ngi tàmbali ci suuratul baqara yàlla ngi naan lii yéen ñi nga xam ne yéen a gëm yàlla na ngeen joxe ci liñ leen wërsëgal léegi te jublu ci jëmm yàlla ja na ngeen def loolu nag balaa bés a ñëw bés boo xam ne su ñëwee boo jaayee du jarati xarit bu lay xettali itam du am mu ne anfiqu mimma razaqnaakum min qabli an yow yowmun laa bayun fiihi wala xulla ci suratul baqara borom bi wa taala nee na yow yonent bi aleyka salaatu wasalaam mbira nga mu yéemu na su fekkee ne indi nañ la yow ñu indi doomu aadama yépp dajale leen ca kanam yàlla bés ba yàlla yi penc ak ñoom muy bés boo xam ne sikk nekku ca mu ne keroog bés bu màgg lay doon fa kayfa is jamaanaahum li yawmin laa rayba fii naka noonu nee na bés penc bu ñëwee bakkan bu nekk lépp lu mu liggéeyoon ci àddina dana ko fekk ñu teewal ko ca kanamam su baaxee mu xam ne moo ko def su bonee mu xam ne moo ko def buñ koy def bu ko kenn yëgulit yàlla yëgoon na ko malaakaam ñu bind ko tegal la yawma tajidu kullu nafsin maa amilat min xayrin muxdaran naka noonu borom bi tabaraka wa taala nee na qiyaam dafay am ay kanam yoo xam ne keroog dañuy kontaan te bég lool ndax yërmande yàlla ja ndax imaan bu ñu amoon ci àddina waaye dana am kanam yoo xam ne dañuy ñëkk lool te mer lool ndax mbugal maag mooy yàlla gi nga xam ne moom lañ nekke woon ci àddina mu ne yow ma tabyaddu wujuhun wa taswadu wujuh borom bi tabaraka wa taala nee na am na ay bakkaar yu koo xam ne yaa ngi koy toggoo ni ki sàcc jël alali jaambur yi moo xam ci màng nga sacc walla ci leneen yowmal qiyaam boy dekki dañu lay takkal lépp loo sàccoon muy yëngu mel ni ay jóolóoli mu ne wa man yaxlul yaati bi ma xalla yowmal qiyaama borom bi tabaraka wa nee na dee mbir la ku nekk danga nga ko mos te nag ku nekk da nga dee jënt fenk jënt so dara du xew sa montor bi nga takkoon sax du taxaw àddina la dal di wéy rek jënt fenk soo ñëpp añ ñëpp reer ñu fàtte la soo nekkee ko am maanaa am benn journal bu rëdd ci benn koñ bu tuuti saw tur ñëpp gis kook sa photo ñu fàtte la boo légee ñu ëmbee ko caaf sànni ko su fekkee amuloo maanaa nag far loola sax moom far dootoo ko far am kon nag ngir mu ku nekk da nga ci jaar kon nag ku nekk war nga jéem am looy def balaa yawmal qiyaama jot alquran ne kullu nafsin daayiqatul mawt wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyaama naka noonu borom bi tabaraka wa taala na koo xam ne weddi woon nga yàlla te weddi malaaka yi nga weddi téere yi weddi yonente yi weddi bés kooka réer nga réer gu màgg goo xam ne bés boo dajeeg sa borom danga xam ne mbirum yàlla amul kaf amul caaxaan te yàlla nag lépp lim nu waxoon ma nga koy def nee na woon naa leen bind bind nañu mu ne mu naa leen indi ci àddina indi nañu mu ne ma dundal leen dundal nañu mu ne ma rey leen ku deegul it sa mbokk dee na sa xarit ak ku la jege xam nga ne yaa ciy topp mu ne bu àllaaxira ku nekk ma fay ko kon nag ku weddi kooka réer na wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yawmi al axir faqad dalla dalalan baida borom tabaraka wa taala nee na képp koo xam ne dangaa dëggu di wax dëgg di def dëgg yaa ngi koy xam bés bu muy dekkee ak bés bu muy dajeek yàlla keroog la dëggay jëriñ ndax dëgg dana aar borom dana ko musal ci lakk mu ne qaala allahu haza yowma yanfau saadiqina sidquhum naka noonu borom bi tabaraka wa taala nee na bés bés dana ñëw ma nga doomu aadama yëpp ñu daje ci benn béréb képp ku amoon ay xiram walay bokkaale képp ku doon jaamu ku duhul yàlla su keregee ñu taxawal leen yàlla na léegi nag ana ñi ngeen doon jaamu te duwuñu yàlla nañu ñëw bu ñu mënee dara ñu def ko wa yawma naxshuruhum jamian summa naqulu lilladina ashraku ayna shurakaaukum alladina tazamuun borom bi tabaraka wa taala nee na koo xam ne danga nga fàttee bés pénc da nga bés bi ngay dajeek yàlla te fàtte ko mooy defoo dara lu baax ngir bés ba defoo dara lu baax ngir yaakaare dajeek yàlla bàyyiwoo lu bon ngir ragal dajeek yàlla bu kerogee yiwit ñu fàttale ca safara sa ni nga fàtte woon bés bi al yawma nansaakum kama nasu liqaa yawmihim haza borom bi tabaraka wa taala nee na bés penc bu ñëwee képp ku daawoo jaamu yàlla mooy kati yàlla yeeg def kati njaaxum yeeg turkati deret yeeg sàcc kati alali nit ñeeg ñi nga xam ne ñooy toggoo ñaawteef ya bés la boo xam ne dañ leen di lakk ca safara di leen jàllarbi di lakk gi bu ñoree ñu jàllar bi bale boor bu ñoree ñu dëpp ko bu ñoree ñu jaaxaanal ko ba mu ñor xom dana bëgg a dee sax te du mën a dee yawma yuxma alayha fi naari jahannam fa tukwaa biha jibaahum wa junubuhum borom bi tabaraka wa nee na bis bu ñu fangee nit ñi ñu dajee ci kanam yàlla mu ne dafay mel ni àddina ak li mu yàgg ci noonu yépp danañ ko fàttee ndax tiitu bés pénc day mel ni àddina benn waxtu rekk lañ ci amoon jaar fa rek dem mbir mu gàttee noonu nag warul jar ngay dugg safara warul jar ngay nekk ci mbugal moo xam ne du jeexati wa yawma yaxshuruhum kaan lam yalbasu illa saatan min annahaar borom bi tabaraka wa taala nee na bu ñu demee àllaaxira ba dékki amul kenn koo xam ne yaay wax ñu di la déglooti amul kenn kuy joxe benn ndigal wala benn ordre ci kenn wala ci lenn yàlla nee na keroog ku wax sax man maa la jox ndigal ma yaati laa tukallimu nafsun illa bi izni borom bi tabaraka wa nee na su fekkee ñori nañu suuf si jëlee fi asamaan si doomu aadama yi ñu ci suuf yépp ñu ne fëng nag dajeeg yàlla keroog yàlla rek mooy kenn mooy na taakoon mu ne keroog defkati bàkkaar yi ñu ngi leen di lënkale di leen takkante ñaar ñaar joñ leen yóbbu leen safara yawma tubaddalul ardu xeyral ard wa samawaat wa barazu lillahi alwaxidi alqahaar wa tara almujrimina yawma idin muqrinina fi l asfaad borom bi tabaraka wa taala nee na iblis ak ñëpp ñi mu àndal bi nga xamee ne bëgg nañoo nax yàlla naan ko muñal ñu ba bés bi ñuy dekki yàlla na ko yow ak ñépp ñuy jubadeeg ak ñuy def mooy yàlla ak ñi nga xam ne ñu ngi cippi cippi yàlla may leen wérti duñ jaamu yàlla yàlla ñu ne yéen ñépp maa ngi leen di xaar ci bés boo xam ne am na waxtu wuñ xam innaka min al munzarin ila yawmi alwaqti almaalum borom bi tabaraka wa taala nee na bakkan bu nekk dana ñëw di dàgge ak borom ba naan ko yow yaa may seede fii ci kanam yàlla ma nar lakk ñu nar maa dugal safara te yow xam nga ne su ma duggee safara doo ca mucc ku nekk danga nga xuloog sa bopp naan bakkan naan loxo lu tax nga seede tànk lu tax nga seede naan yaa demoon nangam yaa defoon nangam yàlla nag nekk roog lu waay am yaa ko fa def yàlla du tooñ kenn yawma taati kullu nafsin tujaadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin amilat wa hum laa yuzlamuun borom bi tabaraka wa taala nee na bu dekkee amee yowmal qiyaam ku nekk dañu lay jox sab téere ndax ñu ngi la booleeg ay malaaka muy kiraaman kaatibiin sooy dox ki jiitu ki topp ci gannaaw boo toogee ki ci ndeyjoor ki ci càmmoñ boo tëddee ki ci bopp bi ki ci tànk yi lépp loo def bind nañu ko su ko defee bu yomul qiyaamee ñuy ne téere bi becc ci sa kanam ne jàngal keroog ku mën a jàng ku mën a mënta jàng ñëpp ay mën a jàng nga jàng say bakkaar say jaar-jaar ba sottal dal ngay xam nag yow léegi fan nga jëm ndax yaa xisaab sa bopp jàng nga li nga def ba sottal mu ne iqra kitaabak kafa bi nafsika alyawma alayka xasiba yàlla nee na yowmal qiyaam dañu naan montagne yi dem leen ñu dellu fañ jóge woon suuf si ne fëng amatul montagne amatul xur amatul géej ñu fëng ñépp duñ bàyyi kenn bépp woote bu ñu woo doomu dana am ku ñëwul ba des keroog bu keroogee kenn du tarde wa yawma nusayyirul jibaal wa taral arda baarizatan wa xasharnaahum falam nugaadir minhum ahada borom bi tabaraka wa ku yaakaar ne day am koy àndal yowmal qiyaam wala am koy lënkooga ku lay dimbalee ku lay xettali ngeen na jum nga ndax bu ngeen may bu ngeen di dekki di ñëw ci man kenn kenn ngeen di ñëwee wa kulluhum aatihi yowma alqiyaamati farda borom bi tabaraka wa nee na bu ñu walee ci bufta bi mooy ñu wal nga liir gi ne jóg leen dekki jot na eey yéen yàpp yi ñeppatikoo yi ci biir suuf eey yéen kawar yu tasaaroo yi eey yéen yax yu funax yi jóg leen ngeen dekki woy ji seen borom mu ne nga jis keroog nag defkati bakkaar ya ñu fa leen seen bët yaa nga xollare ñu nga tiit ku nekk ngay xulli nag yow ma yan faxu fi suuri wa naxshuru almujrimin yow ma idin zurqa borom bi tabaraka wa taala nee na damay taxañ asamaan si ni ñuy taxañee naru gu ñuy taxañee ay téere jële ko fi ngeen ne fëng ngeen janok man lu waay def keroog ma fay la ko su baaxee santal yàlla bu bonee yeddal sa bopp yawma natwi samaa ka tayyi sijli lil kitaab borom bi tabaraka wa taala nee na yowmal qiyaam bés la boo xam ne tiit ma dana bari dana màgg bee jigéen sax dana fàtte doom jim juróon ak doom jim nàmpaloon jigéen mën na ca tiit sax ba la mu ëmboon daldi sippeeku keroog danga gis nit ñi nañuy kër kër yeeg ni ñuy dóore seen bopp ci lépp gis dafay mel ni dañoo màndi te màndi wu ñu sax mbugalam yàlla ma rekk moo màgg keroog mu daal di ne yawma tarawnaha tazalu kullu murdiatin amma ardaat wa tadau kulla daati xamlin xamlaha wa tara sukaara wa maa hum bi sukaara walakin adab